nee daanaka doy na sëkk nee na xanaa day nuyu kon bokki taalibe yëpp ginnaaw jotaay bi xat na ndax ñi ngi sax siyaare yi waaye ñun xam ni Serigne Touba moo nu gënal lépp ndax fii ñu day alali Serigne Touba nee na yëfi alali murid yëpp. alali Serigne Touba la waaye ñun nag ñoo ci jiitu ñun njabootu Cheikh Ibra Fall ndax li ko waral nee na koy nettali Serigne Assane Fall mii moom Serigne Modou ndax am na kilifa bu ko laaj ni ko Baye Fall lu leen wuutale ak murid yi des ndax dañ leen a ab ab garaat wala mu ni ko li ko waral. loolu ki jiite réew mi moo ko laaj nee na moo ko laajoon bërki démb mu ni ko li ko waral mooy maam Cheikh Ibra Fall nii yoon wi doxe ba tax ñu wuute ak yoon yi ci des Cheikh seen maama ko fi indi ndax Serigne Touba mësta wax ni ko su ma musta wax kenn ni ko toogal na ci suuf musta kenn nit ni ko jox ma sa alal nee li nu wutale ak yoon yi Seex Ibra Faal ko fa indi nee loolu ko indi nag nee tam fàggul leen nag yéen njaboot gi nee na loolu pàggu téef la ba àdduna di tukki nee du ngeen ci soppiku mukk loolu taw feex la kon sëriñ Seex Njaaye Mbeng moom sëñ Mor Moustapha nee sax Basiru Mbàkke nee na ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax ci turu Seex Muhammadul Muntaxa nee na mi lay ñaanal sa jotaay bii nga wuutoo Seex Moodu Moustapha Fall yal na yàgg lool te sama dolli la ci defal ay ndam ndax ku fi mas a ñëw ci nii rekk la lay fekke mooy toppee mel noonu nga nee kon yàlla na Serigne Touba doon lay nee te rafet jot ci loolu ñu ñaan ndax sa maam dana ko liggéeyal waaye sa waajur wa itam Cheikh Modou Moustapha Fall nee na waa kër Serigne Touba yëpp ko fonkoon ndax kenn ku ci ne naa yow ci barab nee ku ma am yitte ci ñoom ci sëñ Modou Moustapha Fall la daan ñëw waa kër Serigne Touba yëpp man moo tax pour mas a gisee ku bokk ci njabootu seen Moustapha nee na kenn desul amul ci sago loolu seen waajuróom moo leen ko fàggul parce que boobu nekkoon ci moom ak ga nee moo roog a ci sët yi kon ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal suñ kilifa bu baax ga sëriñ Cheikh Jëmb Faal yàlla sa dolli ay leeram nee jàmbaara ngoog nee na doy na sëkk ndam lam liggéeyoon ci jumaay Tuubaa ci jamono Cheikh Mamadou Fadal bañ la ko ca daloon dal ko ca muy dana jóge ca kaw daanu ci suuf